waaw association bi moom nu fépp fu ñuy maye dara rek te yëg ko rek euh, euh, danañ fa dem teew fa si ay teew yu ñu bari danañ fa teew ngir jëmmi nekk donneur de sang mayekati deret biñ doon ba pare danañ fa teew tamit ngir. Euh, liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey si Touba ngir deret bañ fee manqué looloo tax association bi fépp fu ñuy may deret ak muy kuréel gu manti doon rek rawatina kuréel gii di wilaay nga xam ne fii lañ dëkk rawati ko euh, moo tax ñu fiy teew saa ne daal. waa association bi ni mu sosoo association bi c'est national ndax section lañ yor muy section tuuba association bi am na ci région Sénégal yëpp euh, euh, bureau bu mag bi mi ngi dakaar bureau exécutif bi mi ngi Dakar président national bi nga xam ne si mooy association bi mi ngi Dakar moom tamit tudd euh, Serigne Thierno Seck Lokonte man ma yor section Touba muy département de Mbacké muy association boo xam ne si c'est bénévolat lépp luñ ciy def jëf te yàlla tax moo ñu koy def moo tax ñu koy def moo tax ñu tuddee ko association national des donneurs bénévoles de sang def ngir deret bañ a manqué fii ci Touba dañ koy def ngir nit bañ a faatu fii ngir manqué deret fii ci Touba dañ koy def ngir sauver ay bakkan yi nga xam ne si tey jóge nañ ci yeneen dëkk muy Linguère Daara Jolof Rosso gi fépp fu ñu évacué malade nga xam ne si yaakaarul fenn fu dul Touba te ñun en tant que jeune Touba war a taxawal mbir moo xam ne si euh, képp koo xam ne si yaa ngi fiy ñëw ngir yaakaar Touba gi sa yaakaar bañ a tas moo tax nag ñu taxaw ni Touba. kenn waratu fee faatu ngir manqué deret structure la boo xam ne fii waxuma la non seulement day taxaw ñi soxla deret mais au bon fonctionnement de l'hôpital des hôpitaux même nga xam ne si tey par exemple ni deret bu amul hôpital du dox deret bu amul chirurgien du dugg bloc deret bu amul urgence du dox deret bu amul maternité dana am jafe-jafe ndax suñu mbokk jigéen ñi di xëpp deret saa su ne deret bu amul pédiatrie day am jafe-jafe ndax deret xale yi dañ koy soxla saa ne muy loo xam ne si nag ñun ñëpp tey dañoo war a roy ci kuréel gi nga xam si tey mooy wilaya ñëpp kuréel gum mu mënti doon muy association mouvement daayira dañoo war a roy si jëf yi activité bu ñu mënti def boole ci don de sang pour dimbali ñi nga xam ne ñu ngi tëdd ci loolu hôpital yi ndax dañ ne may deret méttiwul mais ka ñuy may deret moo metti ndax boo xoolee yow la ñuy may deret doo wax may leen ma lu tuuti danga naan leen may leen ma deret te da ngay woo say mbokk ñun nag dañoo lancé appel bépp jeune bépp ndaw bépp koo xam ne si say at toll na ci may deret nga nekk si 18 ans ba 60 ans nga nekk jeune muy jigéen wala góor ñu ngi lay woo nga ñëw maye deret te yàlla tax. wax dëgg yàlla liggéel Serigne Touba la ndaxte heure boo mayee deret rek sauvé nga bakkan te loolu ci jaam yàlla la bokk ñu koy def rek te yàlla tax. séentu séentuwuñ ci dalaat defuñu ko ngir kenn dañ koo def te yàlla tax rek tey it wax dëgg yàlla képp ku ko mën a def nga ñëw def ko ndaxte lu baax la ndaxte heure boo mayee deret rek xamal ni sauvé nga sauvé nga bakkan waaw te sauvé bakkan moom lu rëyee a la